après fi am na yoon. waaw monsieur le gouverneur moom ngeen di gis ni ñëw di rendre compte xalifa bi ci CRD bi nga xamante ni ci lañ jógee léegi. bismillah. ni ak euh, sous préfet ak euh, commissaire police centrale ñoom ñoo ñëw ci néeg xalifa bi di rendre compte xalifa bi ci CRD bu ñu jógee nii léegi ngeen mën a suivre lépp en direct bu Fayda Tidianiya Euh, gouverneur ak préfet ñoo nekk ni moom leen gis nañ ci nekk ci saalu Mawlaaya Xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass euh, commissaire police centrale douane waa eaux ñoom ñëpp ñu ngi fi ñëw ni tey chef de service yi nekk Kaolack yëpp surtout ci administration bi Euh, commandant Cissé moo toog noonu ci seen càmmoñ bi ngeen di gis noonu gendarmerie nationale euh, di rendre compte Mawlaay Xalifa Cheikh Tidiane Ibrahima Niass ci CRD bi nga xamante ni ci lañ jógee léegi pour préparation gàmmu Medina Baye édition 2018 moom ngeen di suivre ne en direct Fayda Tidiane yi taaxiru tuuti Mawlaay al Xalifa génn Thank you. Topos. Topos.

Cissé Cissé rëcc rëcc moo tax añ na ko añ na ko caare Idrissa caare onas onas social ndóol ndóol ñoom ñoo yore wàllu mbali ñoo yore mbali assainissement

jël photo sa téléphone paa bi am ñu toog sàmm bi ma docteur Barry ñetti téléphone bi def ñetti téléphone bi def bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi al-azim radi allahu an alxutb almaktum barzak almuhammad almaalum mawlana abil abbas cheikh ahmad tijani radiallahu anhu samiyikum radi allahu an cheikhana wa mawlana cheikh islam alhaji ibrahima Niass sayidi wa mawlaya alxalifa cheikh ahmad tijani ibrahima Niass qala allahu baqaakum wa iyadakum wa nasarakum wa xaqaqa murada cheikh fikum ñu ngi lay ziara ziara bi gën a seet bi ziara yi jégalu kàddu yi nga xam ne moom nañu yëkkati ci sa kanam ndax yaay suñu sëriñ te yaa toog maqaam moona Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ne moona Cheikh Ibrahima Niass moo doon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yàlla dafa ne an billahi ñu yëkkati seen kàddu ci kaw yonent bi wala ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom ndigal bu amee moom sañ na wax na ko bilaal daf doon noddu te déggoon na laay jooju waaye ndigal la doon noppoo kon nag ci sa ndigal ndigal li ñu santoon ñu say taalibe ñu ah, ah. say doom ñu say njaboot euh, commencé kon nga dénk ma ko moom jàmb bi ànd ak commission yëpp commencé nañ sëriñ Alim ak euh, ak Mass ak mboolem ñu jiitee commission ko ansaaru diin xam nga dañ ñoo wax nañ nekk benn bopp liggéey euh, daje nañ tey ak sa njaboot ba tey ndax yow yaa njabootu ñëpp muy ki nga xam ne moom la yàlla def mu ilif Kaolack tey mu monsieur la gouverneur bu Kaolack nga xam ko lool kenn du la ko présenté waaye dafay rafet rek ñu tudd ko ñu ànd ak euh, adjoint ànd ak monsieur le préfet ak monsieur le maire ak service ci ak monsieur le commissaire ak mboolem service yi nga xam ne nii ñoo ne ci kaw Kaolack ak ci commission yi nga xam ne moom la moom lañ taxawal pour liggéeyee gàmm xamal nañ leen sa itte li nga xam ne mooy ngir mission sa sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne yaay xalifaam ci lu wér euh, ci lu feeñ ak ci lu nëbbu mooy lu jëmee dëkk bi kanam lu jëmee gàmm bi mu réussir lu tax gan yi jugee bitim réew ak askan wi dëkkee Sénégal ñu gàmm jàmm dellu ci jàmm ñun tam wax dëgg yàlla def seen rôle xamal ne waxtaan nañ ci point yëpp euh, tontu nañu itam tontu yoo xam ne dal na suñu xel euh, monsieur le gouverneur moo jiite jotaay bi waaye service bu nekk rek comme ni ñu daan defee at bu jot ne ren daf ko gën a yokk dana la laaj fii nga toll ci yëf yi lépp lu baax lu ñu daan def fii ci dëkk bi renouvelé nañ ne confirmé nañ ne incha allah ñu ko yokk ñu ko wàññi lépp loo xamante ne am na ay jafe-jafe ay benn benn la monsieur le gouverneur ñaan na leen ñu def rapport balaa ay fan yu néew balaa ñuy dem ci réunion nationale bi ñu def Dakar ndax kilifa yi nekkoon mu mën a jël matuwaay yi war ci kontaan loolu déglu na ci seen njaboot ak ci talibe yi li nga xam mooy taxawaayu nguur kenn du la ko nettali monsieur taxawee na ko parce que sa xarit monsieur le président li mu bëgg mooy lu la neex ci gàmm bi ak ci njaboot bi ñoom def nañ ci lépp lu ñu mën nga ñaanal leen yàlla ñaanal leen yàlla tawfiq am ba liñ jëlante ak ñun ngir yow ak sa njaboot ak ñun tamit liñ fas yéene ne yi nga xam ne jàmbat nañ ko ci yenn point yi nga xam ne nii du suñu tayeef yàlla may ñu matal sa doom sa taalibe Cheikh Tidiane Gueye moom tam moom lañ joxoon kàddu bi ci wàllu olofal bi ak wàllu tubaab bi muy point de presse bi moom jotoon na lépp loo xam ne moom moom lañ ko ci gàttal bu ñëw yàggal la soxla toog ak yow benn benn ko rek yokkute la ci yàlla nga ba toll nga foo ne ci âge car bu fa toll yàlla doo doo topp dara sa bàyyi daf laa gërëm donc surtout bi tey bu lay xoolee Mawlana Cheikh Ibrahima kon ñu ngi jéggalu di émale fii kàddu gi nga wax na tamit njabootu presse bi yëpp ñëw nañ ñu bëri ñëw nañ waaye sa doom yi nekk fii Medina comme Al Fayda Baye am euh, na dina ak Kossy euh, TV ak euh, Alfayda Tidiane ak ñi ma tax ñëpp ah, ngi fii teew. ngir ah DTV bu Omar Way ñoom ñëpp ñu pour lu la neex ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant maa ngi gërëm tam commission bi ànd ak man di liggéey rafetal nañu liggéey bi ñu ngi beesal ziara bi sant nga ñaanal gouverneur ñaanal ñu ànd ak ñaanal gouvernement bi ñaanal Sénégal yi salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh sëriñ bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ñu ne ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi mu ngi leen di nuyu di leen tatagal ci bés bii ci jotaay bii ci weer wii ci xew lii nga xam ne moom lañ dëgmal si muy gàmm ñu xew yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di xewal islaam lépp fàttali ko waxtu jamono jii ñëwaat buñ ci tolloo dem boo gisee Baye Niass dafay feeñ ci léppam foog lu bees boobu dafa dafa rafetoon waaye du daan gën a rafet dafa tabe woon waaye du daan gën a tabe ci waajal bés bi daf ko daan waajal ak léppam du dëgmalee rek ba ba muy wane gannaaw lu mel ni loolu dafa mel ni ñu taxawaay boobu lañ taxawee mu ne mu ngi doole sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di sant gouverneur di ko beral gërëm moom di taxaw taxawaay président de la république ñu ne dëgg-dëgg moom mbir mii gis na lim leen itteelee te xam na ko wane ngeen ko ci seen jëf ak seen wax ñu leen teeral moom sallallahu alayhi wa sallam mooy sang mbindeef yépp moo gën ci lépp lu yàlla bind lépp lu yàlla bind yonent bi tax mu bind la mu ne yàlla dafa wax yonent bi ne ko li ma bind yëpp yaa ma ci gënal gannaaw yaa tax ma bind la kon nag bésam bésab jullit ñëpp la ci penku ci ndeyjoor ci xarfu ci càmmoñ bésab jullit ñëpp la ak fu mën a ne ci at mu ne Sénégal nag réew la moo xam ne ci jamonoy tubaab ba dañ daan wax ne quatre-vingt-quinze pour cent ñëpp jullit lañ la xew bo xew boobu nag lay wax ne xew moom moo jublu ci tey mu ne ñu ngi sàkk bu baax ci gouvernement bi ñu koy sant bu baax gouvernement ak Sénégal di lu seen taxawaay mu ne réew moo xam ne noonu la mel ci diine bu amee ñu mel noonu ñu taxaw taxawaay bu mel ni bii ñuy wax ci gouvernement du Sénégal loolu dara jomb ci luñ man lu may sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla yàlla dëgëral seen taxawaay yàlla nekk di seen dimbal yàlla barkal yëngatu yëpp ak dal yi jàpp ci loxoy kenn ku nekk ci ñoom jëmee leen ci lim bëgg ak ci lim gërëm mu ne yàlla mën na loolu yàlla ñu ko defar ñu ngi leen di sant beneen yoon bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di ñaan yàlla nag mu faj soxlaay ñëpp ñu fi ne bëgg-bëgg yi ak càkk teef yëpp yàlla nag mu ko yàlla jox ñun ñii ñëpp yàlla jàpp loxol kenn ku nekk ci ñun yóbbu ko ci lim gërëm ak lim bëgg mu ne yàlla mën na loolu yàlla ñu ko defal barke yonent bi barke ci ci am sant bu baax di gërëm tamit komaaf ci njiital Baye Mamoun mi nga xam ne moo uutu Cheikh Mamoun nees ci taxawaay boobu mu ne di rafet rafetlu tamit taxawaay bi dellu ci gannaaw benn yoon lépp lu ci bàyyam daan def bu deful lu ko ëpp it def na lu toll noonu mu ne ñu lay sant bàyyi ñu ngi lay gërëm kuy jàppalante yow ci liggéey bi di ñaan yàlla yàlla nekk seen dimbal di jàpp ci seen loxo di barkeel yëngatu yi ak dal yi yàlla mën na ko yàlla ñu ko defal mu ne mu ngi gërëm jamiyatu ansaaru diin tamit mu ne jamiyatu ansaaru diin Baye moo ko sos boole ko yaatal boo xam ne ko bindoon jëmale ko ci ñun di leeral lan mooy taxawaayu jamiyatu ansaaru diin ak ay wareefam mu ne boobu ba léegi delul gannaaw benn yoon moom it lépp loo xam ne ñu ngi ko daan def ci jamono jooju ba léegi ñu ngi jéem di ko def mu ne mu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal président de la république nag nga xam ne tey jii gouverneur fi toog toogaayam mu ne mu ngi koy sant gouverneur di ko gërëm mu ne mu ngi rafet luy taxawaayam mu ne ndax président xam na ne réew mii xam na ne quatre-vingt-quinze pour cent jullit la te kilifaay diine yi te kilifaay diine yi ñoo jiite fànn boobu ñoo jiite loolu te kenn ku ci nekk nag président de la république jox na la sa gëdd wàcce la sa wàccuwaay dañu gis ne moom gëdd boobu mu leen jox moom diine la ko jox diine ji la ko jox moo tax ñu koy sant moo tax ñu koy gërëm di ko ñaanal yàlla yi di ñaanal ay ndawam lépp ñu koy jàppale ñoo taxaw taxawaay ñi taxaw taxawaay bi yëpp di ñaan yàlla gën leen a dimbale yokk jox leen seen i bëgg-bëgg ak càpteef yëpp ci zaahir ak ci baatin ah, ah, yàlla mën na ko yàlla ñu ko defal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika ala llahi bi aziz amiin amiin amiin amiin amiin baax a baax di nga xamante ni moom la ñu war a jubbanti ci gàmmu bi commencé ñoo tey ñoom ak gouverneur ak préfet ak même chef de service nga xamante ni ñoo nekk fii ci Medina Baye fii ci Kaolack ñoo ànd ak moom ñu abide suba ba léegi ñu doon xawla li nga xamante ni mooy lu yéwénal gàmmu bi te liñ benn CRD bu am solo bi pare jubal na benn simili liñ ci ñu ñëwoon nag journée bi sax nga leen di sax ñaan ñi ñaan li moom la ñu décision def ci gàmm yàlla yéen na ko ñu ngi ci ñu ñaan yàlla bu baax yàlla fekkee sa taw ko gàmm bi ñëw ci jàmm paase ci jàmm lépp luñ ci bëgg a def ñu def ko ci barke jaam bi sallallahu alayhi wa sallam salli ala sayyidina Muhammad ñu ngi leen di jox jërë ngeen